ah jërëjëf Seydou Nourou jërëjëf Hadj Malick Serigne Babacar bëgg nañ trop kontaan nañ macha allah kii xam nañu ñun waykat dañuy bëgg koo xam ne foo laal mu dem moom xam nañu macha allah allahuma la adur amin macha allah bëgg nañ trop fan laa yemoon téléspectateurs yi toog ci kanam Malikia TV leeru Maodo waaye lii ma sol nag Hadj Malick bal xaw mi couture moo ko ñaw est-ce que men muy Moodu Mbaye Moodu Mbaye 77 557 91 66. ah waaw de leen fa ñawloo ji nag kooku suñu moodu la. de leen fa ñawloo ji. bal xaw ma 77. 557 moo lay ñawal. dafa ñëpp di ñawloo ji nag. waaw 557. 91 66 77 la. macha allah. wallaay yow jàpp nga ko sëñ Babacar. amiin. maa ngi taxawoon ci. yonent bi salaatu wa salaam am na juróom-ñetti at. Mhm. maamam Abdul Muttalib faatu. bi muy faatu nag bàyyi na taaw yu bari moom Abdul Muttalib wante nee na Abu taalib mi bàkk bokk ak bàyyi yonent bi ndey ak bàyyi mhm. li mu bëgg ci sëtam bii di yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko ci mën a def lan lañ ciy jànge mooy ndekete xaalis rek du defar xale te boobu moo gën a ñàkk ci doomi Abdul Muttalib yi moom Abu Talib Abu Talib moomu يورنا يونتي علي الصلاه والسلام نينتي ات مو فك جوروم ات نياتا ات دون 12 ans فوكي اتك نيار داف كوميرس دي جوغي مكه ديم شام موي دمشق كابيتالو سيري مو تك رك يونتي علي الصلاه والسلام لخصكو مو نيكو في باي ماودو واخنا لاكو في حمه في حبه عمه قد راح معه الى شام لان بلغ بصرى ذوي عصم bim amé fukki at ak ñaar mom yoonent bi ali salaatu wasalaam yomi tok ci kanamé kan maliki TV leru mawro diko sétan ànd nak papam Abu Talib dem sham ñu tek ca ñaata at yoonent bi am ñaar fukki at ak juróom ak ñaari wèr ak ñaar fukki fan ak juróom ci la delu sham ngir commerce bu mu ak sun yaay Khadija wa ama xamsin wa ashirina rujuu ila Saamin waa may suratun fii xidmatil karami allahu akbar bi mu demee nag ba am ñaar fukki at ak juróom papaam boobu bu ndaw boobu woo ko ba mu ñëw ne ko sa këri baay yeeg ñeneen yi ñi tol ni yow rek ñoo koy yore li nga ciy jànge mooy jeunesse sénégalaise bi mm-hmm. il faut que ñuy yëngu ci dara mm. ñaar fukki at ak juróom ku ko am mm. war ngaa mën a jàppale paa bi war ngaa mën a jàppale maire bi waaye toog ci kër gi bool dof mooy bal bi bool bi baraada bi ak baal yii ku ko topp nga ne barak barak ban bal bi waaw bool bi mhm. baraada bi mhm. ak yi gars yi daanaka léegi baali mel na ni xewi na dafa mel na de waaw mel na ni xewi na léegi yokk ci naar bi naar bi bu ko defee yooyu yëpp nag bëgg a rey nit ñi de waaw naar bi <laughs> muy muy carte googu nga xam ne dañ koy def mhm. carte googu nañ ci bàyyi xel bi mu amee ñaar fukki at ak juróom ak ñaari weer ak ñaar fukki fan ak juróom papaam Abdul Muttalib papam Abu Talib bu ndaw moo ko yebal ci suñ yaay Khadija suñu yaay Khadija femme d'affaires la woon ndeke moom dafa tegoon bëtam ci yonent bi alayhi salaatu wa ci tegtal yu mu amoon ci moom. ñu séq am commerce ñoom ñaar. ci lu gàtt. yàlla dogal mu dem dikk. sëñ Mansour. waaw suñu sëriñ suñu doomu sëriñ di suñu sëriñ. waaw sëriñ Cheikh Tidiane Sy. ndeysaan bu Cheikh Alhaaji Malick si Maodo ndeysaan nee na ñu nuyu la bu baax ziar la di la wax ne dundalaat nga daara ji ñu ngi koy delloo tabaarakallaahu nee na mu ngi lay topp bu baax sëñ Babacar waaw nee na mu ngi lay nuyu bu baax te di la ziar bu baax a baax Thierno Saïd Serigne mu moo ma wutal bur suma jàngi allahu akbar ma dañ di ko wax Cheikh Seydil Haaji Malick si Maodo Cheikh Seydil Haaji Malick moo ma wutal bur suma jàngi def fukki at bitim rew mom la mm-hmm. kero jag la and ak ñun ñu dem jag saw ci way mam abdou ak sama rak lamine ak kuñ doon wax jaman gana fay mm-hmm. ba dañu soxla won ñet ci senegal man ci la bokkol ñi ngi koy nuyu di go ziar istim mm-hmm. di ñaan yalla mu guddal fanam amin te diigal ci wer amin te defal ko ngërëmal yalla warid warun min allah akbar waye nak di delu di ko jaal rakam ju bax ji muy mam usman ku woyof kooku nga xamne ci cëri yàlla yi la bok muy man tawada lillahi rafaahu allah yàlla yàlla def yoy yep serigne Cheikh ñi ngi bég bu bax diko ziar bi mu deme dik nak la tak suñu yaay Khadija Cheikh Alhaji Malick wax nako ko Khadijatin dammaha bil ha'isatan xaaisatan ghayraha al almuxtaaru lam yakumi yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mi tak suñu yaay Khadija ñaar fukkat ak juróom lam ak ñaari weer ak ñaar fukki fan ak juróom suñu yaay Xadija am ñeent fukki fan moo tax Maodo ne bil jësli booba dijji na. ñeent fukki at ñeent fukki at la boobu nag Haj Malick yonent bi alayhi salaatu wa salaam génnaatul Médine. génnaatul Makka foofu la toog. yéen ñi toog ci kanam écran Malikia TV leeru Maodo yonent bi alayhi salaatu wa ñetti métiers yi la def. ban ak ban sàmm na. jaay na woote jëm ci yàlla. ñetti métiers yooyu ñetti métiers yi la def adaawatu ilallah fekk nga am loo jàpp nag waaye soxna si taxawoon ci gannaawam ba nit ñëpp xëy ñii dem atelier ba ñii dem tool ya ñii dem bureau ba muy topp grand place yi naan yàlla nee na yonent bi nee na soxna si ko ko defal mooy suñu yaay xadija radiallahu anha mooy xadijatun sakkanat bil qalbi qailatan lam yuxsika allahu fi daarayni laa takimi mu nekk ak moom nag ba am ñeent ba am fanweeri ak juróom-ñeent ak juróom-benni weer yàlla nag di yónni Jibril mu di ko dikkal ci takk ndeer ak géwant ngir ñu defal ko formation juróom-benni weer ndax bu Jibril ñëwee mu mën koo dékku ci buntu boobu nag nga xam ne mooy buntu juróom-ñeenteel ci biir xilaas nga xam ne mooy min baadi taa in wa laamin thumma sittati ashhurin raa kan filaaqi subi lam yahimi fi la ñuy gàmmoo ci fukk yi ma la waxoon ne maam Cheikhul Hadji Malick radiallahu anhu lim ko ci xilaas ne kër gu jóge mu yàqu koñ bu jóge mu yàqu dëkk bu jóge mu yàqu arrondissement bu jóge mu yàqu département bu jóge mu yàqu région bu mu jóge mu yàqu réew bu mu jóge mu yàqu adduna bu jóge mu yàqu ñu ne Maodo waxal mu ne min baax dihi wa amir لولياء فيرفع الفساد الخلق خلق والقوحات الخلق والقوة passar o وحياة مودا وزود سقى القرى عادل وحياة مولى سهل وزود سخى القرآن بسلام عبر صبا وعدواني حسن مولى رشدان دودان دودان aminata yi seeni loxo yi ca kaw ya aminata yi ay loxo yi ca kaw aminata yi seeni loxo yi ca kaw ya aminata aminata aminata aminata ku sopp yoon na sa loxo yi ca kaw aminata wooy aminata aminata ku bëgg yónnee loxo yi ca kaw yaayu Mamadu Lamin aminata aminata aminata yaayu Mamadu Lamin aminata ku sopp yónnee yaayu xamoon yaayu Mamadu Lamin aminata aminata yaayu Mamadu Lamin aminata maam Maodo yaayu xamoon yaayu Mamadu Lamin aminata loxo ca kaw aminata yaayu Mamadu Lamin aminata maam Maodo محمد يا محمد عبد الله باي محمد المطلب هاشم محمد جمنا يا القصي مرتا علي بن فير نعنتا خزيمتا مدركتا ay mu dar mu dar mu dar mu dar mu dar ay mu dar mu dar mu dar mu dar mu dar mu dar mu dar yow mu dar mu dar wayal nizar Lamin maat Mami Mamadou Lamin maat Lamin maat Mami Mamadou Lamin maat Adnaan adnaan adnaan موضع دخاي أيوة خمدود أخو عدنان على موضع دخاي أيوة خمدود وخل ما مزر بيز منظور أيوة خمدود أخو عدنان على موضع دخاي أيوة خمدود ما وكبايت كنا موضع أيوة خمدود عدنان على موضع دخاي أيوة خمدود ما وكبايت كنا موضع أيوة خمدود xalma yi Serigne Mbaye Sy Mansour ne bu la neexee rañaan wax ak buur bi dellu si julleeg ñoom fajar ami jural nanu doom doom datul mel ni moom ba mukk mukk sidi la waliina wa sayidi la àdduna naa la mawdayam jaxaay ay wax loxo ca kaw àdduna naa la mawdayam jaxaay ay waxam du day waxal maa Serigne Mbaye Sy Abdou waxal maam Serigne Mbaye Sy Abdoul Aziz waxam du la waaw ni Moustapha bu ma déggul yaaram maa ngi lay woyantoo Moustapha bi ma déggul yaaram maa ngi lay woyantoo te dégg naa ndaw tal nga yéefar xam na xam xunay ni ba ma abaajee ni dafa daw dafa naano jaayam réer ko ami jural na nu doom doom datul mel ni moom ba mu ko sama abada sëdi la wali na wa sayidi عندنا نار موضة متخاي أيوة أخوتك وعندنا نار موضة متخاي أيوة عندنا عندنا نار موضة أيوة خمدنا وعوني مصطفى يا رسول الله يا حبيب الله يا خير خلق الله مصطفى مكة ليد مصطفى يا رسول الله يا حبيب الله يا خير خلق الله مصطفى مكة ليد مصطفى banu ne la nanga tànn. yaa tànn bayti laay. Moustapha banu ne la nanga tànn. yaa tànn bayti laay. Moustapha banu ne la nanga tànn. yaa tànn bayti laay. tànn Makka tànn Medina. bayti laay Moran Sam. tànn Makka tànn Medina. bayti laay Moran Sam. Ridwaanu mooy sa bëkk néeg moo di saytu say doom yëppee ami jural na doon. باقي عند ما نال موضع جخاي أيوة خمدوني وخل عدت نزارا معادا من يجاوز الحد أستاذ منصور فار بكتاب بين كيف المدستين زارا معادا من يجاوز أستاذ منصور فار يا مكيف من يجاوز أستاذ يا مكيف المدستين زارا رضي الله تعالى عنه تعالى عنه ما يا مالح الخير موضوع والمختير من مضر جزيت خيرا عميما شاملا وفرا سيد الحاج مالك سيابا اتى بخلاص فايق دررا أتيت ما يعجب السودان والغرراء سيد الحاج مالي هذا كتاب نفيس قد جمعت لنا في الحديث والآيات والسيرة سيد الحاج مالي سيدي الله كل جنان دقوك الجفلا والله والله والله والله والله سيد الحاج مالك يتم جندي ريو ماني كنبتل لفوتو شرقا وغربا علماء ياني فرن لزول فالكل يعلم أن لولا كدين جفي كان أسيرا تيد كني ممل جمل أرشدت ربيت علمت وراء مقام ونو بيسوب لينتيون وخمني كن فتلول سيد الحاج مالك رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنه أبرت كل جنان بكال جفلا ولا ستعلم في إحسانك النقرا سيد العجمري رضي الله تعالى عنه يا مادح الخير والمختير من مضر جزيت خيرا عميما شاملا وفرا زين الحاج هالتي وبحر علمك يكفي الناس الساحل سياني في قريب باعد الشمرة سرين بابا كسيم رضي الله تعالى عنه وبحر علمك وبحر علمك يكفي الناس الساحل جزنا شيخ الحاج مالك بوي بند جزنا اللي تامو في حاج مالك يا كي توك تي كنا مكرا مالك يو تي في ليرو ماودو في ba fii maxaarijul xuruf muy 28 lettres yi mhm. nga xam ne moo composé langue arabe mhm. fii la tàmbulee ba fii mhm. ñu def ko 17 sorti su Maodo soxlaa baat boo xam ne luga la lettres yi dañuy rang benn bu ci nekk naan ko jël ma ndax salis laa salis mooy lettres yi neex a prononcé ndax am na lettres yoo xam ne bu jegee du neex a prononcé mi ngi mel ni kal ayn kal ayn ndax ayn xarfu xalq la waaw alha xarfu jawf la ñoom ñaar ñu dend nga bëgg a jógee fii muy ayin nga ñëw fii day metti day metti waaye gis nga naxwu bi noonu lay mel sëñ Babacar bu Cheikh El Hadji Malick bëggee naxwu passé day taxaw présent taxaw futur taxaw passé na ko jël ma futur ne ko déedéet balay suba ñu faté la présent ne ko jël ma futur ne ko dédét balay suba ñu faté la ya may jël lool la sëriñ mam khalifa di wax ne wa bahru almika yakfi an-nas sahiluhu siyan fihi baidun qaribun shamara wa bahru almika wa bahru almika yakfi an-nas sahiluhu siyan fihi qaribun baidun shamara nee na géeju xam-xam bu maam Cheikhul Hadji Malick radiallahu anhu nee na tefes gi doy na moo xam da ngaa jege wala da ngaa sori booy dugg di lab ndax xam-xam bee bari moom maam Cheikhul Hadji Malick radiallahu taala anhu xam-xamam mi mu ko wanee ci xilaas sharia mi ngi ko wanee ci kifaayatu raaxibiin luga mi ngi ko wanee ci laqad haaja ak nuuniya مم شيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه الله اكبر دبل سيد الحاج مالك وبحر علمك يكفي الناس ساحله صياني في قريب باعد شمرا لول موتا داي فيري القران تي نار ناري داجالي اي كيسيون جوخ كو بن نار يكو ديمال nga testament شيخ الحاج مالك ñu ñëw fekk Cheikhul Hadji Malick di firi naar bi ñëw ne aynal mufassir kan mooy firi Cheikhul Hadji Malick yëkkati kaamil bi ne ko hada huwa al mufassir kii mooy firi ñun waxi borom xam-xam yi la ñuy nettali te su la neexee ñu wax la ko ci xasaaniya mooy dialecte bi mauritanien yi di wax su la neexee ñu wax la ko ci wolof su la neexee ñu wax la ko ci arab su la neexee ñu wax la ko ci tukkuloor mooy Cheikhul Hadji Malik Cheikh Sidil Hadji Malik si ñu taas ñu ci barke ak ku ne amiin sëriñ Babacar Si nee na baayam wa kullu fannin lisaanul xaali xaala lakum alqi lasa talqa min taysiri ma asura maam xalifa li ma doon wax léegi maam xalifa mboolem fànn yi moo xam luga la muy langue moo xam orthographe la muy sarf moo xam naxwu la muy grammaire moo xam li ñuy wax balaaga la ci ñetti xam-xam yi almul maani ak badiya ak bayaan xeet yooyu yëpp soo leen dajalee bu Cheikh Alhaji Malick bëggee bind ni maam Alaaji Mansour di def dañuy jël benn vocabulaire dañ koy yenn absence ba mu goor dootu ko attanati moo waral 1888 te ci fànn yëpp nag la ko amee mu dem Màkka ba mu demee dañuy jàng ab kaamil ci kaaba gi mu fare ndeyjoor naar bi te alquran nee na la ma ashaabul yamin ñoom ngay njëkk a jox naar bi xool ko muy ku ñuul mu yëkkati tuuti ab jukki jox ko di ko déglu ndax mën naa jàng alquran te Cheikhul Hadji Malick am na diplôme ci riwaayatu warsh am na diplôme ci riwaayatu qaaluun ñaari yëpp mu ngi ci kifaayatu raaxibin Cheikhul Hadji Malick ñam baatam naar bi di ko déglu ba yàgg la desoon ca kaamil ba mu jox ko ko looloo waral Maodo guddi gi njëkkee fanaan njarnde nga xam ne mag ñi dañuy jóge fañ jóge wutali jàkka moo jiite maam Gumba Amar maam Gumba Amar Pate Amar ko jur Pate Amar moo sanc njarnde keroo bi mu leen jiitee timis bi ñu jullee timis julli gee ñëw ci kër gi Cheikh Al Hadji bokk maam Gumba Amar ñuy reer maam Gumba Amar dafa tibb xamul fu gémmiñam fare ndax baatu Cheikhul Hadji Malick bi ko jàpp ca jàkka ja mu yëlëb loxoom jóg koo koy Cheikhul Hadji Malick ca neex baat Cheikh Seydil Hadji Malick si naxiilu jismin طويل الباعي معتدل وجوهر صوته في طول وغناه سيد الحاج مالك سي أتقنت أم أنت أكملت الجميع وقد تحت من عمل علما مام كفانتشرا maam alaaji Mansour maam alaaji Mansour maam alaaji Mansour mooy décrire maam سيت سيت سيت موضوع مام الله منصور موي ديكرير دي ملال مام شيخ الحاج مالك يوم ميكو غيسو من لا نحيل جسم كتوتي لا وون مام مودو مام مودو طويل الباي تيري دانيو جوتون معتدل نجول غولو لا نجول غولو موي غودوت بني تيتخ واي غاتوت بني نوكوت موي ربع د غدين جي مودو واخ سي خلاص وتا من لا كتوتون لا تيري دانيو جوت من لا نوبي دانيو غودون waaye dafa amoon kaddu moom maam Cheikhul Hadji malik nekk na Njaarnde diggante Njaarnde ak kel sooy dem Louga da nga romb tablo kel bi diggante Njaarnde ak kel fukki kilomètre la ak juróom-benn booba rajo amut mawdo nekk Njaarnde di noddu malik fa Awa nekk kel di ko dégg ñëw ne Cheikhul Hadji malik dégg naa sa baat bi waaye moom ku bañoon kiraama la ca la bàyyee noddu moo tax mu ne woon annaasu qaydun liman amal ilaha فلا تمل إليهم نديم الناس في الوله كسل وق شاق تقي لا يغنى لا إله إلا الله تقي xam nga lu tax mu way hmm. Hmm. amoon jigéen du ñuy wax Linguère Magandooy Linguère Magandooy Linguère Magandooy soxna Samba Lawbe Fall la woon waaw Samba Lawbe Fall faatu mu dégg Cheikh Al Hadji Malick yori jaam mu ne day ñëw Njarnde jox boppam maam Cheikhul Hadji Malick waxtaan ceeg maam Majoor maam joor maam Gumba Amara ko jur maam Majoor nekkoon naag maam Cheikhul Hadji Malick ci la ndara ndaramaan daanañ bokk benn lal Cheikhul Hadji Malick def ko daan yónni ndox su ñëwee Maodo ñam ko mu ne ko man danga ma jaaxal lu tax su ma la indilee ñam ndox nga di ko ñam mu ne ko ñetti melo yii bu dañee ci ndox dootul mën a laabal caf ko xet uhuh. couleur na fekk nag ñu jële ko fa mu juddoo waaye bu dee fa mu juddoo la ko amee du ko tee laab du ko tee man a laabal maam ma joor nag nee na bi ma ko waxee ma kontaan ñëw ci maam Cheikhul Hadji Malick radiallahu taala anhu ne ko am na fi ndaw suñuy wax lingeer magandooy ku am taar la am na alal ami jaam dalaa bëgg a jox boppam mam ma joor nee na bi ma ko waxee maam Cheikhul Hadji Malick ci jataay nee na daf na tekk ba ma rus Maodo jog bàyyi ma fa nee na ba ca suba samu woo ma ma ñëw mu ne ma mam ma bu dee danga nga say bokk indi ma njarnde pour mabbu diine ji lu mel ni bu ëllëgee boo ko defee ma dellu fa ma jóge woon ni ñuy delloo paaka ci mbar seyxun taqiyun laa yuzannu bi ribatin Seydil Hadji Malick Sy laa ilaha illa allah Seydil Hadji Malick Mamadou nee na damun xaalisun damun xaalisun laa yaqbilul hamla zarratan mukk min عون للاحباء وحصني شيق والله تقي لا يظن بريبة على استقامة بالإله المعاني لأن لا شيخ سرين لا ويتقي برغل يالا لي وانا نكرغل يالا لا دفو جوغي منيلي دفو جوغي منيلي ني نينو نيو گلم لا yow yaa wax wax ji nag mag la de wax waxal ñii nee nañ gëléem la war ñi ne fas la war booba mi ngi ànd góor gi Amadou Mbaye Maodo bàyyi alaaji Mansour Mbaye ñu romb toolu gerte lam war sëgg buddi ca gooñu gerte ci ki xam gooñu gerte Cheikhul Hadji Malick ne góor gi Amadou mbay nañ taxaw tënku nañ gooñu gerte gii dañuy xaar boroom ba ñëw yaa mu fay ñu ñu fay ko wala mu jéggal ñu waaye Maodo xaju la gooñu gerte ci biir bàmmeel loolu moo waral maam Fatma si mooy taawam maam Cheikhul Hadj Malick mi ngi denc maam Roqe 1879 mi ngi taawlu 1881 maam Fatma si moom la joxoon góor gi alaaji malik Sarr mu taawloo sëñ Maniru bi mu ganee àdduna 1881 moom maam Fatma si ci la Cheikhul Hadj Malick bàyyi soow ca la bàyyee yàpp ba 1922 seexun taqiyun laa yusannu bi ribati Seydil Aji Malick si fa mu sa bopp teg ca kaw mukk Maodo di woote nan mën a rek di liit da nga wàcc lool boole ku ñëw nga teral te suub nga leen maslakal laxiyaari kenn desul xam nga li nga wax ci fa mu ne mawlaaw lay taxawal amaltum bi siyaasatin bi an tafaxoo wa wasaloo lil ali mostal li gaa ngi mosal Seydil Aji Malick si ما يسامي مقامي وعمدة العلماء بل تاج العلا وكم اعتلى الخمران نان يوكو فوفو من يونك تتنبي ولا دير شيخ سيد الحاج مالك رضي الله تعالى عنه جرجو سرين بابكر الله يكرمك waxon na len ne yeen telespectateur yu maliki tv leru mawdo pagnandogu biñ len di jox torop defena ne joxe nañ ñaari point mm-hmm. muy leer gi fi mu déparé kiiraayu leer yi mu dugg géeji leer yi mu dugg ba niñ koy jëlee dugal ko ci nit muy suñ aadama fi mu jaar ba yegsi ci ndigal abdallah ni mu ci tuxoo ba mu nekk nit ngeen di ko jàng wa nuuril akwaanil mutakawwinatil adami muy cette lumière tabernacle bi transformé wu nekk être humain mooy leer gi walbati ku nekk nit mhm. ñu toppal leen ko ba mu am fanweeri at ak juróom-ñeent ak juróom-benni weer ñu di ko nag wan ci gént jibril ndax mu ñeme ko bala moo ñëw mu di ko gis jaaral ci biir bunt boobu nag ñu ne woon dañuy waxtaane fukk mhm. yoo xam ne kër gum jóge mu yàqu ban la ci njëkk a tudd yum nun muy barke barke ci xam-xam lañ wax ak barke ci wërsëg ndax na ci réew mi newna de cheikhul xaju malik neena barke xam-xam moy jëfe barke xam-xam moy jëfe ko te neena nit lu bon bon li nga jàng war nga jëfe asaka ci wax na ci kifaaya ne wa alimun bi almihi lam ya'malan mu'adhdhab qubayla ubadil wazan neena borom xam-xam bu jàng ba am xam-xam nanguwu ko jëfe bu yawmal qiyamé bala ñoo duma ñi nga xamné ne ñoo doon jaamu kërëm mom lañuy duma deluna wax ci qantaratul murid wa laysa farqun bayna mal insani wal hayawani duna ma irfani cheikhul xaju malik neena li nga xamné mo takale nit ak li ñuy tudde animal moy xam-xam lol moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam lan la ko yàlla ñëk wax iqra bismi rabbikal ladhi khalaq moo tax Cheikh El Hadj boo xoolee mi ngi dal alquran 1858 te mi ngi jeexal jàng 1888 bi muy dem màkk xool leen boobu parcours amul lu mu jàngut moom Cheikh El Hadj Malick radiallahu taala kon nag barke. bu jógee ci xam-xam jógee ci wërsëg. nan lay jógee ci wërsëg da ngay gis kuy fayeeku 2 millions. Mhm. dafay am déficit budgétaire. Mhm. balaa weer wee